ñoo leen jaay jom ak fulla ngor du ñu nga koy jaay damaa jëlale ñi tëdd ci suuf kon respect respect ci kanamu sénégalais yi mënoo leen ñoo manqué respect ba heure bi continuer dañu manqué respect ñun ñoo bañ ñoo lànk te ku ko fi defati ñu wax ko ndax ñun duñ jàppaate ñun duñ toroxal nit ñun duñuy la sosal duñ la defal leneen waaye bis boo fi toogee bëgg a fugg sa dënd ñu ne la deet boo fi toogee bëgg jaaylu jaay amul ñu ne la deet boo fi toogee dañu jaay loo xam ne nii nekkul ci yow ñu ne la deet parce que amoo loo fiy jaay lu ñu saf amoo loo ñuy jaay lu ñu saf ñun kenn woowu ñu ñuy patpati bañ ñu woowee dañoo dem suñu ngoro suñu jomaa ah. loolu moo taxoon sax kaso jot ñu jot a ñam kaso parce que bu ñu dëgëraloon ba tey ñuy bàyyi ndax xam nañ ne condition yi ñu jàppee woon dara amu ci dara normalu ci kon bañ ñu woowee nekkuñu fi di jaay njàmbaarteeg leneen ak leneen kenn gënuñu ci juddu kenn gënuñu ci lenn te lépp lañu ñu jël teg fee parce que askanu Sénégal jamono jooju moo soxla kon yow Diéguy Diop amoo loo ñu jaay lu ñuy saf tax na erreur bu mag nga def ci sa démission bi mais sa erreur da gën a enfoncer sa bopp da gën a dugal sa bopp mooy da ngaa démissionné ñu ne la passation de service nga lank ba yoon am ci loxo ba yoon woolu la ñu ne passation de service waaye tamit jéegi jóob dañ koy xaar ngir mu indi ay document yu mu bokkaale woon au nom de quoi yow dangaa moom Sénégal direction bi nga jiite woon dañ la ne dañ la koo jaay dañ la ne danga koo doon ci sa maam dañ laa wax ne dañ la ko jox à l'éternité moomoo ko dañ la koo joxoon ndax poste politique moo taxoon Macky Sall teg la fa du njàng mooy jaay ci Sénégal du jom du fulla du fayda gënoo jàmbarte ci jigéen ñi ba taxoon nga nga nga toog ci poste boobu Macky Sall moo xamoon li tax mu jox la ko kon respect respect ci kanamu sénégalais yi respe kenn dootuñu manqué respe ba ñu la woowee ne la passation de service waroo woon a bàyyi yoon di ci am loxo dangaa waroon a dem def passation de service ki la war a uutu di sénégalais comme yow ëppalee woo ko dara du am njàngu du am dara nga taxaw ak moom ci jom ak fulla jox ko li nga xam ne mooy dossier yi waaye nga jël yenn ci dossier yi bokk bokk ko daw ak moom loolu moo tax yoon woo la bàyyi leen di désinformer di victimiser wu ak di wax sénégalais loo xam ne amul xam leen ne ñun ñu ngi fi te suñu gémmiñ yii waxuma la yéen yéen ñii nga xam ne nii dañoo bëgg a jàkkaarloo ak yéen ak yéen ci di leen xaar ngeen def ba ñu jóg waxuma laa nag keneen. parce que yéen neex ngeen a jàkkaarloo yéen dooleel nit ñoo xam ne nii bi ngeen fi nekkee yor doole lañu leen ragal ma laa jamono jii ragal bu am suru digganteeg yéen te du ma sa am ba ñu la woowee ne la kaay passation de service waroon jom ji nga am ak fulla jeeg ngor ji ngay wax ak deret gi ngay wax ne moom lañ lay bàkkee waroon nga koo am ba bul démissionné waaye tam waroon nga koo am ba doo daw ak ay dossier yow jéegi jóob nga ne amoo looy nëbb nga ne dangaa set nga ne takkoo laaloo nga ne defoo luñ lay toppee waaye kat dangaa am ngoruk wala dangaa am loo àndal ba tax bi ñu la ne passation de service nga daw bi ñu la nee dossiers yi nga jël ay dossiers yóbbaale yaakaar na fii yoon dootu fi am jub jubal jubbanti ji ñuy wax dañ koy def par force ndax askanu Sénégal ñoo ko soxla te askanu Sénégal mooy dooleel gouvernement actuel bi kon man gisuma fi jom gisuma fi ngor gisuma fi fulla ak fayda ñu fiy jaay ba yóbbaale sab géwél mu lay tagg loolu lépp nag li ko gënoon mooy wàccoo ak liñ la jox loolu lépp li ko gënoon mooy wàccoo ak askanu Sénégal ndax gënoo fi ba di fi jiite ni ko président Macky Sall defee woon gënul kenn yàlla moo ko dogal ci aw jëwam mu jiite woon askanu Sénégal moo tax tey ñu am sañ-sañu toog daaw ak daaw jig bareen jii jàkkaarloo ak moom di wax ak moom segam nag Macky Sall la ñu jàkkaarlool borom la mu dof bi ki ne bu ne woon ha ñëpp presque ay moor am segam kooku lañ jàkkaarloo woon mat sa yow ak say moroom te ngeen jot a ñam donc gisuma fi ngor bi la sa géwél doon tagge gisuma fi jom gisuma fi fulla gisuma fi fayda bi ngay jaay puisque bi ñu nee dangaa war a toog ba def passation de service danga démissionné daw non seulement nga démissionné daw di daw passation de service ba yoon woolu la ñu ne déetee nga jël ay document daw ak moom ngeen yaakaar ne ñun dañu toog rek nekk ay xar li woon woon neegul de dugg ak génn bi nekkee woon ci senegal di xam li Sénégalais yi di dund di xam seen defin ak seen wax ba tey jii wanniwul ñu ngi seeni tànk parce que dañ leen a dénkoon alalu Sénégal sunu yoon nekkul ci seeni ay vie privée su lijjantiwuñu ko xooluñu loolu mais képp ko ñu dénkoon euh, mbiru Sénégal képp ko état dénkoon muy gouvernement Macky Sall dinañ la saytu parce que li nga yoroon ñun ñoo ko moom moomoo ko donnoo ko au nom de quoi nga ne doo def de service ba yoon di ci am loxo au nom de quoi nga bokk suñu ay ay ay dossier yóbbaale yow yaay kan kii nga mer mer mënta ñàkk daaw ñun ñoo meroon ren da ngay mer mer mënta ñàkk ndax nekkoo leen woon ci dëgg da ngay mer par ndax nekkoo woon ci dëgg nekkoo leen woon ci dëgg loolu mooy dëgg ji donc buñ jógee ci jéggi jóob nañ dem ci Abdul Mbaw nee naa leen ki def ki wax la bëgg te ñun liggéey bi ñuy def wax la àndal mësoo leen dégg ñu ne Coro moo dem ci journal tel bind mësoo leen a dégg ñu ne man rajo sax pour ngeen dégg ma ci problème la ba may def stage laa gëj rajo kon wax bii may def mooy sama njiglaay te dama koy continuer moo tax bu ma jógee ci jéegi jóob ci lu ñeel askan wi ci wax ci lu ñeel askan wi damay porox ndollu ci euh, Abdoul Mbow Abdoul Mbow ci assemblée national moom moo jiite groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar Abdoul Mbaw nee moo ko tax mu yor xalimaam fi nekk nii yor bigam bu fees encre yor feuille blanche am di bind di signé di tàppe Abdoul Mbaw looloo soo soo soos ci loxoom Abdoul Mbaw loolu moo tax mu am nee na gémmiñ ba tey ndax fi mu nekk nii APR bu a bu en dehors ay jéegi jóob ak yeneen Abdoul Mbow rekk ngeen gis mu yor euh, ca pandawam yor ca gël guyam lu ñu wax mu dugg ci lu ñu wax ci wàllu politique mu dugg ci te man dama ni ñoom il devait raser les murs te bientôt ils vont raser les murs ma ni la dinañu dox di jàdd ak a sëgg bientôt dinañ ko def parce que sénégalais ñu baale te ñu fàtte lu fi waaye defoon suba lay neex incha allahu rabbi te yàlla nañ fi bakkan bàyyi yàlla nañ fi sunu borom bàyyi parce que ku jëfoon jëf ju ñaaw di nga fekkee bien sûr Abdoul Mbow moomu bu tay jii politique gu Sénégal tay jii buñ ko jubbantee dootul wax nee naa leen bu ñu mettre au devant les vrais politiciens patriotes les vrais politiciens patriotes ñi war a nekk ci kujje politique yi Abdoul Mbow dootul wax yaakaar parce que li ko ko may mooy moo jiite groupe parlementaire bu benn bokk yaakaar ci assemblée nationale gi nga xam ne ñun askanu Sénégal ñu ngi xippi suñu ay bët di xaar son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir mu tas ko tasar teg fa ñoo xam ne dañoo yor xanamu xar kanamu Sénégal dañuy représenter les Sénégalais dañuy nekkal nekkin bu amul àpp foofee nga xam ne moo di assemblée nationale donc ñun ñuy toog di xaar ñun euh, Abdoul Mbow nee na day continuer du ñu dëggate assemblée nationale bi nga xam ni fa la ñuy gis xar kanamu Coura Macky la ñuy gis xar xar kanamu Aliou Dembourou Sow fa ñuy gis xar kanamu Amy Ndiaye Gniby la ñuy gis xar kanamu keneen ak keneen ak keneen ci assemblée nationale boobu nga xam ne ñun dañu ne dañoo bëgg ñun askanu Sénégal bi def révolution ba mu egsi ba fii sunu xar kanam di reflété ci assemblée Abdoul Mbow nee majorité ba fa nekk moom moo leen jiite maanaam ci gàttal moo tax mu yor xalimaam fu to fu fu lu ne rek mu dugal ci gémmiñam loolu moo waral nee na mu bind ab lettre walla sax mu poser ay question benn ministre de la république boo xam ne dafa am benn DG bu banqaasu ci ministère ñu limogé ko nee na da ko ciy ay question muy docteur Cheikh Tidiane Dièye mi nga xam ne mooy ministre de l'environnement am DG euh, direction boo xam ne ci ministère am la banqaasoo di direction bu ONAS wala ONAS direction boobu ñu limogé ka fa nekkoon ci trois mois yuñ ko fal wala quatre mois ñu limogé ko moom Abdoul Mbow nee dafay pose des question ministre tutelle bi di Cheikh Tidiane Dièye ci kaw limogeage u kookee nga xam ne moom moo jiite woon direction bi ma leen wax ne dafa banxaasoo ci euh, ministère de l'environnement bi Cheikh Tidiane Dièye jiite donc moom Abdoul Mbow may wax ni bu dul woon la mu jiite ci assemblée nationale tey dootul am baat mais am na audace su poser des questions yi mu posé may wax ni man ci sama xalaat bu ko ministre bi mësa mës a répondre waru ko répondre te bum ko répondre ci turu sénégalais parce que Abdoul Mbow posé wul question ci turu sénégalais yi xam ngeen lu ko xanaa Abdoul Mbow tey la euh, euh, am big ak feuille Abdoul tey la mën a jël seen cachet tapé pendant douze ans yii wala cinq ans yii nga xam ne. assemblée national tegu na ko wala deux ans yii ngeen fa nekk lan moo tax yoroo woon sa bic lan moo tax sa feuille blanche boobu ngay bindee yor sa cachet di ci tappe lan moo tax yow ak say ñoom yoroo leen ko woon lan moo tax gisoo leen jàmbatu sénégalais yi lan moo tax jamono jooju nga damm sa xalima wala question yooyu jamono jooju dafa saful woon boobu na ko askanu Sénégal gënoon a soxla jamono yooyu ci 12 yooyu lañu ko gënoon a soxla que 3 mois yii waaye kenn gisula nga bind kenn gisula nga signé kenn gisula nga def lettre ouverte ba tey nga koy soog a def nga ne la da ngay opposé wu opposition boo xam ne yow sa sa sa sa sa dañ naan ko rël mu toog. sa bëre dañ naan ko rëll mu toog maanaam sa départ baaxul donc man su doon man maay ministre bi duma ko répondre parce que posé wul question ci lu jëm ci lu ñeel askanu Sénégal déedéet politique politicien boobu moo fi war a jeex di kaas ngir sa bopp di laaj ngir sa bopp di wax ngir sa bopp loolu moo fi war a jeex te dafiy jeex ba faw parce que li li waral tey nga nga nga bind lettre le ministre Cheikh Tidiane Dièye loolu moo waroon a tax bi règlement intérieur bu assemblée national bi ñu koy salfaañe bi assemblée national nekkatul ci dëgg nga waroon a bind jamono jooju Amadou Ba mi jiite woon seen gouvernement nga waroon a bind Macky sàll nga waroon a bind ay ministre parce que jamono jooju ci bi ñu leen fii teg yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci magistère bii ci assemblée nationale sénégalais yu bari dañoo jàpp ne teguwul ci yoon parce que règlement intérieur bu assemblée nationale dañ ko salfaañe ngeen toog ngeen toog donc boobu segam boobu nga amul xalima du tay ngay am xalima du tax du tax tay ngay bind ci turu askanu Sénégal ñu lay déglu du tay ngay imposé wu ci kaw kanamu ay ministre nga ne dangaa pare le député le vrai député le député patriote ki yàgg teewal askanu Sénégal laataa muy am mbalaanu kiiraayu député ki nga xam ne nii dafa dox ci lu ñeel askanu Sénégal ba ay dàllam jeex dat na lu ne ndax askanu Sénégal tëj nañ ko kaso jiiñ nañ ko lu ne toroxal nañ ko tuumaal nañ ko def nañ ko lu ne muy Guy Marius Sagna le ba kooku taxaw tey ne ministre bi wax lii ma wax la wax parce que ministre bi amul benn yoon pour tontu la Guy Marius Sagna dalaa tontu lu leer yow nga génnaat sa xalima googu nga xam ne moom nga yoon yor sa feuille blanche yor sa cachet génnaat ne Guy Marius Sagna laa laajoo ko ñun sénégalais ñun ñoo la laajul Abdoul Mbow yow ñun ñoo la laajul yow ñun ñoo la santul nga poser question à ci sunu tur Abdoul Mbow ñun ñoo bëggul nga bind ci sunu tur bëggul ñu nga poser question ci sunu tur yow benn Guy ma Sagna nga wax ñun askanu Sénégal ñun danoo bëggul nga wax ci sunu tur en tant que député de la nation bëgguñu nga wax ci sunu tur parce que représenté wooñu du sunu naqar du sunu bànneex représenté wooñu malheureusement malheureusement pour nous représenté wooñu donc Guy Marius Sagna nga ne da ngay génn tontonteeg moom bindaat sa xalima di wax ak moom alors que ñun ñoo waxut ak yow ñun askan wi ñoo la laajut ñun ñoo bëggul nga laajteel ñu ñun yónne la lettre bi nga bind Cheikh Tidiane Dièye concerné wuñu moo tax Guy saañaat Sagna génn tontu la lu leer nga ne doo ko tontu waaye ñun ñoo ñëwaat tontanteeg yow te bu doon man maay Guy Marius Sagna du mën a tontuwaat dañu lay bàyyi nga yàq encre ndax xam naa big bi yaa ko jënd dañu lay bàyyi seen cachet boobu nga xam ne tôt ou senegal askanu Sénégal ko ne ñu xet ci yéen te jox ko ñeneen dañu lay bàyyi rek donc. yabeel mënul weesu seeni doxalin yabeel mënta weesu seen façon bii ngeen di def yabeel mënta weesu yaakaar ne askanu Sénégal ba tey ci li ngeen leen doon dundal ci la ñuy continuer di dund askan wi révolution la ñu dund da a fàtte lan mooy révolution yéen a ngi gis Niger gis Mali gis Tchad ak ñeneen ak ñeneen révolution moo leen indi ba ñu dàq France révolution moo ñuy indi ñun ñi askanu Sénégal ba ñu dàq Macky Sall ci biti taxaw jàkkaarloog waa France révolution boobu